perte euh, de Alfred Mendy. Ah. waaw Petersen. transport waaw transport bi vraiment métti na trop trop trop mu ñu bëgg vraiment ku ñu ci mën a dimbale parce que da ngay wàcc par exemple nga ñibbi ay vingt et une heures couvre feu vraiment dafay métti dafay métti na trop trop vraiment ngir fu koy mën nañu dimbale ñu jàppale ñu waaw vraiment parce que amul gis nga fu mu nekk nii amul benn oto amul daan du ñu mën a jàppale eh, te ñu teel a tax rek ñu jàpp jàppale ñu ñun dañu jàpp di a wàcc war loolu dafa dafa métti trop quoi. mais yow depuis ñaata temps yaa ngi fi. ah man de ça fait presque deux heures de temps maa ngi fi taxaw. waaw waay waay ba tey maa ngi fi taxaw mënuma am pexe bi am oto. fan nga war a dem nii. maa ngi dem ba Malika te dama dem ba Kër Massar ma dox tànk dem ba Malika dafa métti trop quoi. te xale yi dañuy buuxante te yow mag nga mënoo buuxante. waaw wax dëgg yàlla man mënuma buuxante buuxante bi daal mënuma ko su ma doon mën a mënu lay am oto daal ma wàññeeku fu may liggéey ma dem fanaan foofa moo ma gënal parce que léegi mënuma ko. Euh, Elzo laa tudd. waaw wala nga ne El Hadj ah. waaw man coow lii mooy lii nii ngeen gis nii ci town bi li xew xoolal nit ñi wala mbooloo mi war a am oto xam nga lu xew journaliste nga gis nga lu fi xew n'est-ce pas lii rek ah, waaw attends n'est-ce pas li fi nekk rek lii lii lii lii rek xam nga lii rek lii rek lii rek rassemble lii rek musiba la ber presque tàccaloo bi nuñ loo fii nii rek musiba la nga bëgg a def couvre-feu vingt et une heures c'est pas normal ñoom lii la ñu sant nit ñi lii man d'accord naa ici lii ku ko deful buñ la gisee muy xale muy mag nag dañ la fayoon fayal xoolal bu leen ne trente mille sax jaadu na mais vingt et une heures couvre-feu nit ñi war a wàcc am na ñoo xam ne cinq heures ba léegi ngi fi quatre heures ba léegi ñu amuñu oto oto yi nangu ñoo dem embouteillage bee tax fii avant couvre-feu rek fii embouteillage fii dafay bari après ñu def couvre-feu vingt et une aussi xam na ne vingt et une day fekk nit ñi fii ci ci ci ci euh, yoon yi xam na loolu man démb vingt et une douze maa ngi côté fii xaw ma fii ni ko waxee fii maa ñi Pikine n'est-ce pas léegi loolu nga bëgg a def vingt et d' na nañ feebar baa ngi fii nit ñaa ngi dee ñee ngi faj man d' accord naa sax bu doon feebar boo xam ne kenn du wér bu la dalee sax da dee waa kay ñu ne waaw nañu waaw nañu reyante def ay mesures yu feebar bi ba mu njëkkee ñëw ñëpp xam na ni musiba la n'est-ce pas moo tax xoolal ba mu jëlee couvre-feu à vingt une heure nii ñëpp xaw ma vingt heure ñëpp d' accord nañu koo gis mu yor gelam ci poosam jënd gel par la fa da nga yor am na ñoo xam ay gansar gansar gansar ñu doon takk ndax léegi gars yi dem nañu ba affronté ko ñemee nañ ko ñu bàyyi fi ay gàmm bàyyi fi ay màggal bàyyi fi ay yeneen gaa yi dem rasam def lu leen saf def lu leen neex ba bois di ubbi lépp tijji léegi loolu yëpp feebar bi ñëwaat ak doole ah bu ñëwaatee tamit aussi te bale passé nit ñi kii woon nañ ko defoon nañu ay kii ne mais nañu wàññi ñi yi dégg naa ci wéy béy nee nañu tamit président wax na ne naka fàkk gi amul dara caisse noire amul dara amul lu mu demalee nit ñi xam n'est-ce pas ceeb amu dofa diwlin amu dofa léegi kon fu nit ñi jëm ah nit ñi dañuy xëy di wuti n'est-ce pas loolu sax uti bi garawal mais oto yi amu fii vingt et une heures boobu ñu joxe force nit ñi vingt et une heures fekk leen ci yoon bi. man Soukeyna Tall laa tudd. ñu mhm. la fekk oto mais fu ne nii apparemment jafe-jafe oto am na lan nga sa lan nga ci sa gis-gis. ah bu doon sama sago de président bi yóbbu ko ba vingt trois heures parce que da ngay wàcc quinze heures ba dix huit heures dix neuf heures oto. bu doon suñu sago daal mu yéegal ko xam nañ ne dëkk bi dëgg feebar bi am na mais nañu dimbali rek mu yéegal heure bi. ba pare fii dafa mel ni para bala ngay am oto da ngay buuxante ak gars yi waaw fii moom da ngay daw da ngay daw bay bëgg dee te doo mën te jigéen moom mënul daw yenn daw yi waaw insécurité totale moo fi am moom en plus loolu tamit day favoriser propagation waaw waaw loolu tamit dëgg la maladie bi moom comme buuxante bi dañ koy tere te fii nii moom daa bëri buuxante te day tax comme ni naan maladie bi bëggul euh, mbooloo te fii dafa bëri mbooloo macha allah a jëm Grand Mbao waaw ah, jafe na jafe na lool sax jafe na torop torop torop torop instant eh, wax dëgg yàlla dañuy sonn mm, balaa ma fi yegg pratiquement damay fajaru pour mën a teel a ñëw fii nii mais ngoo boo xoolee temps bi ngay ñëw temps bi ngay liggéey bariwul daal temps bi dafa gàtt. waaw tous les jours problème bi ngay bi ñu ko bi ñu commencé ba léegi. waaw chaque jour moom nii la ñuy def moom dañuy daw di dem ak a ñëw waaw nii la ñuy dund. métti na métti na trop métti na trop waaw waa gis nga barki Serigne Touba metti rek démb cinq heures laa waaj mais ay neuf heures laa àgg sama kër ay neuf heures et quelque barki alxuraan nga xam ni instant yi da yàq sa liggéey man li ma doon ñaw instant yi nii pareegul taw ñaw xewlu suba la ko borom di jël ah man ñu xam ne dëgg lii dafa metti bu ko mënta arrêté mais na ko ba vingt trois heures fii vingt trois heures ku ne dina àgg këram ah gis nga sénégalais yi sonn nañ barki Serigne Touba Mbacke sonn nañ sonn nañ waaw. c'est-à-dire euh, mbir mi nii li tax mu doy waar bon heure bi gàtt na hmm? gàtt gàtt gàtt bi mu gàtt tax na parfois léeg-léeg am na ñoo xam ne dinañ fi jël oto di dem mu reer leen ne ñi fi des ah, duñ dem duñu ñibbi pourquoi. parce que oto yi heure bi ñoom ci la ñu bokk am na certaine heure suñu bu ñu demee du ñu ñëwaat kon ñi fi nekk lu leen di yóbbu hmm? kon couvre-feu heure bi ñu joxe dafa gàtt hmm? gàtt bi mu gàtt lu doy waar la si ñun mag lañu parfois ñu taxaw fii e, di xalaat oto bi ñu war a yóbbu ban la buñ ko mënul am dem nañu ba RTS bu ñu ko amul di doxaat continuer ba Colobane te sonn ba pare dañuy dem wax affaire yi lekk moom waxuñu ko kuy xalaat nooy teel a wàcce añ sax boo ci eggee doo lekk ba suur waaw di mag dox fii ba RTS parfois nga dem ba Colobane bon ba Colobane oto yi ñuy tasel oto boo wax mu ne la dama am samay clients yu may jëli fële waaw parce que son pas organisés parce que chef de garage su fekkoon ne day def oto yi suñ ñëwoondo oto bu nekk côté bu ne mu ne oto bi fa ngay daw waaw mais chauffeur yi ñoom ñoo commandé gars yi di def lu leen neex. wóor na yàlla yoon dañoo sonn dañoo sonn man la man la Fatmata Sow sonn naa tàyyi naa mënatumaa gis samay njaboot. ay guddi guddi guddi bu dul 10 heures di 11 heures bu dul 11 di minuit métti na nañu Macky Sall dimbali ngir yàlla ak yonante bi sonn nañu mu wa mu bàyyi na bàyyi couvre-feu bi mu wutal ñu masque bi ñu yor masque yi ñun ñëpp dinañ jàpp ci masque bi waaye na bàyyi couvre-feu sonn nañu sonn nañu tàyyi nañu nag bu baax du xaalis du dara dañuy daw daw nañ ba sonn lu ñu lekk sax dañoo të même ba pass bi yokkuwul yokku na kay Kër Massar téeméer bar ña 1000 francs yokku na bu baax a baax te da ngay dem jaay suba ba ngoon doo am dara suba ba sa boo xëyee huit heures ci suba ba kañ ngay wàcc nga ñibbi Kër Massar quatre heures boo ñibbiwul boo génnee tamit ba guddi ngay doog a am oto sonn nañu tàyyi nañu jàpp na ci jàpp ngir yàlla yonte bi kon jullit la ñuy jullit nañ jàppale mu dimbali ñu sonn nañu mu bàyyi couvre foofu sonn nañu mu annulé ko mu taxaw ñu masque lu ñu wax ci masque dañ koy def wóoru ma de ñaari fan de maa ngi fanaan Dakar tey tey maa ngi nii maa ngi fanaan fii wóor na yàlla gis gisatuma gisuma samay njaboot ci marché ba ci marché ba ci kaw taabal ya fa laay fanaan wóor na yàlla billaahi wallaahi ah man en personne Escasa laay liggéey mool diis quatre heures ci ngoon fekk na ñu libéré ñu ñu wàcc boobu ba léegi maa ngi taxaw fii di koj ay oto di xaar oto mënumaa fexe ba ñu te man en personne mënumaa bàyyi liggéey bi may a biir toog sama kër j'habite à toog ak sama ñaari soxna war leen nourrir ba pare war a fayal samay doom jàng ba pare man mu war a ñëw toog toog benn place est-ce que loolu naa ko mën mais du ma ko mën foofu ma xëy suba ñëw uti si ma utee ba may am problème mu ñibbi sama kër vingt et une heures la ñuy la ñuy arrêté couvre-feu yi kan lañ yëpp bu ñu waxee ñu ne carrément feebar bi feebar boo xam ne ba ñu tàmbalee depuis première vague ba léegi dañoo dem ba moom en personne moo ne on va vivre avec eux ba léegi on vivre avec ba pare ñu commencé du du loolu mu dem ba ci biir moom ni muy réagir mooy bu fekkoon dañ ne Macky Sall en personne moo damay cité Macky Sall en personne mooy suñu président de la république du Sénégal bu fekkoon carrément day jël ay décision boppam j'accepte mais décision yi muy jël mooy day xaar Macron jël mu door a jël Macron jël quelque raison moom mu jël quelque raison wàcce ko mooy lan Kees ak dakaar léegi yeneen yeneen régions yi nga xam ne ñoom ñoo ëppale Kees ak Dakar nag léegi lan li fi day mel ni si fekkoon sax ah, du couvre-feu kese wala du euh, faj nit kese moo ko tax a jóg daa day mel ni leneen moo ci laxasu je se sais pas on sait jamais mais sama xalaat laa waxee parce que boobu ba léegi da gis ne ay mère de famille yoo xam ne ñu ngi xëy di daan seen doole am na ñoo xam ne euh, sama soxna fast food laa ko ubbil restaurant muy jaay Rufisque fi muy jaayee mënutul la jaayi lan dafa la ma dimbali ci lu bari ci biir kër gi di ma couvrir mënutul jaay ndax lan vingt une lay arrêté te moom fast food la yor léegi lii ba kañ bi rey économie Sénégal ba pare ñun mënuñoo xëy suba uti pour yóbbu suñu njaboot te dañuy gagné suñu vie honnêtement loolu laa si amoon lu may wax. jafe-jafe xam nga mooy lan ñun ay troisième âge lañu ay mag lañu nekk ay gor am ñu doom ji ñu yor Macky Sall keroog bañ koy fal ci Pikine man mii taxaw di wax dama daanu ñu yéeg sama kaw ba dama mujj hospitalisé barke yonent bi te kenn euh, dimbaliwu ma ba ma wér mënumaa toog sama kër te yoruma dara mais dañuy daw nii lii contamination bi ça n'a rien nit bu stressé du xam lu muy def na seet boppam seet yàlla mu ngi protéger ñun tam bëggal nañ ko lu baax parce que suñuy doom la jàmm lañ ko bëggal waaye nag nañu jéem a dimbale tamit comprendre ñu ah may ñu bu matee douze jours mu bàyyi nit ñi dox ak seen xel ndax nit boo ko tiitalee du la mën a liggéeyal sàkkantuma nag ku yarul dara. mais lan la war a la war a def. Macky li mu war a def mooy toog seetaat boppam bu baax xam ne moom falul boppam te yàlla moo ko fal. maa ngi tudd Thierno Diène dëkk ba Grand Mbao depuis 17 heures maa ngi taxaw fii mën naa samay naataangoo yi ngeen di gis nii mais mënuñu am oto li ko waral mooy li xew si dëkk bi li li njiitu réew mi wax doon loo xamante ni arrangé wul néew di doole yi mel ni ñun parce que il faut ñu xëy see Dakar pour am lu ñu yóbbu kër ga te dafa am waxtu wu ñuy jox pour ñu wàcc te waxtu yooyu lañ joxandoo ñëpp te man damaa jàpp ne moom heure bi mu ñu jox bu ko yokkoon dina tane lii parce que lii dafa metti da ngay gis mag muy daanu fii ndagee njëkkante oto ah, sa moroomu rakk di daanu fii ndegee njëkkante oto te pour man mën nañu dawe mbas mi neneen lu nekkul du ñu defar ay couvre-feu yoo xamante ni arrangé wul réew mi bu njëkk ba rek daf ñuy dañoo sonal carrément quoi daf ñu sonal bii nag ñëw doggali ñu parce que lii doonul suñu arrangement wax dëgg fa yàlla parce que lii day gëna a bu feebar amee ba bokk man dama naan lii daf koy yokk ku nekk dangay jóge dëkk ak dëkk ñu ñëw di tàncaloo bu kii jógee fële am ko man ma jóge mbaa mu jox ma ko bon day gën a law bon li fajul jàngoro nañu xante dëgg ñun daal bu ñu sañoon daal mu xool beneen solution bu nekkul lii daal parce que lii métti na lool lool lool lool wax fa dëgg fa yàlla. yow tamit takkuloo masque mais lu waral loolu. noo maa ngi sama masque. parce que la ma bëgg li may wax mu génn c'est à cause de ça ma tegg sama masque parce que tamit xa nga njiitu réew bu ne nañ def lii rek. lii war mooy ñu ànd si parce que ñoo ko fi teg comprendre bon yoon la ñu takk masque donte sax wóoruñu ne li ñuy wax am na waaw wóoruñu parce que pour man bu jàngoro amee war nañ wane fàng ne lii mooy jàngoro ji nii buñ même buñ wanewul kii kaw am ñu ne kat nii ak nii parce que gis ngeen tuberculose bi mu fi amee gars yi dañ dem si hôpital yi filmer leen siska wan ñu ko ñu gëm ko fagaru mais lii ba léegi. man fa ma dëkk bokk na si cas yi ñu ëpp li ñuy lim comprendre nga ba sànq ba tey mosuma see gis kenn du ma ne nag amut mais sama bët tegawu si te dëkk la boo xamante ne dëkku lébu xam nga ñëpp a bon daal li ñuy ñaan rek mooy mu xoolaat li mu lu mu lu mu lu mu ñu tegal nii parce que daal metti na lool lool lool lool ba sa kanamu yàlla. salaamaaleykum na ngeen def naa leen ñun de ñu ngi nii ci Petersen dañoo sonn depuis dix-sept heures la ñu ba léegi nii amuñu benn oto. paas yi dañoo yokk téeméer téeméer boo deful téeméer doo ñibbi yombal boo deful 1000 francs doo ñibbi tuwaawoon bul dafa metti nag nañ xoolaat makki na xoolaat li waaye lii neexul nañ xoolaat dëkk bi lan a la na xool lan mooy solution bi rek na bàyyi couvre-feu bi rek boo bàyyee bëccëg te bàyyi boo bàyyee bëccëg te bàyyoo guddi boo bàyyee guddi te bàyyoo bëccëg tam du def dara du yàq day a yokk rek parce que bëccëg bi mooy indi problème bëccëg bi ci la feebar yi di ci la nit ñi di wàllante guddi bi buñ toogee kenn du kenn kenn wàll kenn na ko nii moom baaxul na ko annulé sama zaar yi dañu am dëj sama magu jëkkër dafa gaañu suñu kër mu ngi fees dell nit mënu maa fexe ba ñibbi loolu baaxul lii baaxul na bàyyi na ñaan nañ ko la bàyyi lii parce que bëccëg bi la nit ñi di yokk feebar yi bëccëg bi la nit ñi di kolante mais guddi bi kenn di yokk feebar kolante solution bi daal moo di par exemple ñu fekkee mën nañu euh, heure bi ñu mun ko jëm a fexe ba reculer kii ko ba ay même dix heures sax mu tane vingt vingt deux heures mu tane ba vingt trois heures mun a tane comme ça euh, client yi mën a ñibbi. mu yéegalal ñu heure bi waaw. wala mu annulé ko sax. waaw bu fekkee mën nañ ko annulé ñu annulé ko rek mais mu yéegalal ñu heure bi rek. parce que ñu bari la waaw loolu tam ñu ngi koy wax de waaw. loolu ci sa xalaat bi ah man de xam naa ne am na waaye tamit ñu yéegal heure bi daal moom lañ gën a soxla ndax tamit comme dañuy dund de jour le jour te dépassé ñëpp di daw mu ñu yéegalee heure daal nañ ngi dimbali trop. man en personne gisuma solution boo boo xam ne carrément ci li wax man c'est que dama par personne waxuma la feebar am na waxuma la feebar amut parce que ku feebar da nga war a faju yaa ngi dégg mais man mesure yi ma gis du lii mooy solu mooy mooy mooy créer solution bi lii sama frère bi wax sànq muy da nga war a arrêter couvre-feu bi mbaa nga yéegal ko boo ko mënta arrêter nga yéegal ko ba benn heure parce que dem liggéeyi wàcc nga ne vingt et ba heure bii nii mënoo fexe ba dugg sa kër quatre heures seize heures ba léegi maa ngi fi fu mu toll nii est que dix neuf heures jotul si je me trompe pas dix neuf heures mu ngi nii moom moo jot trois heures de temps maa ngi taxaw fii di njëkkante di daw di ut oto fu ne ma dugg fa oto jaxaay sax su ma ko gisoon dama ciy dugg parce que Rufisque laay ñibbi dafa dafa métti quoi xamul lu may def je ne sais pas mu toll nii je suis en train de réfléchir xamul lu may def su ma gisoon oto léegi taxi boo xam ne 2000 la sax dama ciy dugg ñibbi mais gisuma xaw ma may def nan laay mujjee obligé def damay mujjee toog obligé xaar yàlla yàlla jeexut mais am na loo xam ne boo doonee ab njiit am na yoo xam ne waroo ko teg sa population du population bi mooy lan am nga doole am nga kàttan ji tey jii boo fi toogee benn heure yi policiers dal sa kaw ndax lan ordre la ñuy jël te foo ñu exécuter seen i ordre loo ci mën dara loo ko li nga mën mooy. yàlla moo la sàkk moo leen sàkk nga toog déglu suñu borom mais métti na trop. kooku yow lan mooy nekk solution bi kon. ah bi parfois gars yi boo yokkee Sénégalais dañuy négligent léeg-léeg ñu toog seen kër ba vingt vingt deux tamit ne dañuy dem. am na loolu tamit. waaw mais gis nga ñun ñun liggéeykat yi fii ñu fi nekk yëpp ay liggéeykat lañ te ñun ñëpp ay responsable lañ quoi yaa ngi dégg mais da ngay xool 23h 23h boo ko defee normalement ku liggéey ba 21h nga wàcc balaa 23h di nga dugg sa kër. mais instant yi nii barki Serigne Saliou Mbacke boo toppee tali bi dangay gis ay magum jëm di dox te loolu du yoon loolu àq la nañ waxante dëgg rek. mais ma laa la benn affaire couvre-feu bi yow da ngay yaakaar ne feer bi guddi gi lay dox feer gi bëccëg gi lay dox heure bii yow instant yi nii ñu ngi dajaloo nii rek yow mën nañ koo wàllante suñu biir. ni ñuy dawee di njëkkante oto yooyu noonu rek mu nañ ko wàllante suñu biir normalement ah mais booy def couvre-feu couvre-feu bi pour man amul benn amul benn rendement amul ben rendement amul benn rendement baax. amul amul amul benn amul couvre-feu bi amul benn ra na fi jógee amul benn rendement feebar bi du feebar bi moom du dox guddi ndax guddi nit ñi dañuy tëdd ñun sonn nañ ñun sénégalais yi dañoo sonn. yaa ne maar sonn nañ tamit papa. Assane Faye laa tudd man maa chef Kaara Ngoon Petersen ñun yokkaloo wuñu kenn paas sir nombre loo wuñu kenn ah geraw loo wuñu nañu ngeen jël seen nombre fay la kaay naa fay yóbbu client fi ñu jëm ñun loolu def loo wuñu kenn lu lu lu yoon santaanewul. mais yéen yan jafe a satisfaire yëpp. Ah, ah jafe-jafe yi mooy client yi dañuy ñëwandoo demandoo ko moom naka ko jeg ndax 1980 fii la ñu fekkoon man ba maa ngi yoroon di dawal waaye booba dama daan daw wakaam bu ma dawee wakaam dañ ma ne maa joxoon benn kayit ni ma boo xëyee waa Pikine dañ daan xëy du ñu am oto dañ maa joxoon benn kayit ni ma boo xëyee da nga def ñaari voyage Pikine soo ko delloo dawi wakaam amoon na fi 1980 bo duñ ñëwaat duñ ñëw ñu leen jàpp yàq seen liggéey ku dem da ngay gaare. est-ce que yokk heure bi kay gën la. ah yokk heure bi kay moo gën ci ñëpp moo gën ci yëpp. moo gën ci ñëpp yokk heure bi bu ñu ko defee vingt quatre vingt deux heures moo tane ni ñi mën a ñibbi. pour man li nekkoon solution bi mooy d'ailleurs oto yi heure yi mu leen jox pour ñu wàcc dafa teel dafa teel parce que fii ku ñibbi ku nekk am na oto bu jëm bu nekkul Ndiaga njaay am na tata bu fa jëm bu ko yéegaloon tuuti dina tane beneen bi mooy couvre-feu bi tamit mu yéegal ko parce que lii indi lii lépp lépp mooy heure bi dafa wàcc de trop te dafa metti nañ waxante dëgg dafa metti ku même boo nekkee si oto bi sax sa xel du dal parce que yaa ngi xalaat wàcc foo xamante ni heure bi day jot ay liif dal la xam nga te tamit amul dara nooy justifié woo ne yow wàcc nga da nga liggéey woon joxuñu ñu benn benn benn kii boo xamante ni mën nga si génne ne tey heure bi nga fi nga liggéey da nga wàcc war nga mën ñoom boo dajee ñoom war nañ la war a bàyyi nga dem sa nga ñibbi moo tax fii coono bi ngay gis nii ñëpp ñu tegoo ko parce que dañu ragal loolu dafa metti daal dafa metti waaw ñu ngi sàkku ndimbal nag bu wér a wér a si moom comme que mooy suñu njiitu réew parce que daal métti na daal wax dëgg fa yàlla jërëjëf. pour mbas mi ci boppam li mu ñu war a defal mooy mu may ñu ay alcogel may ñu suñu xel ànd ak suñu dal ñu ñu dem ndànk ñëw ndànk. couvre-feu bi nag. couvre-feu ko teggil arrangé wu ñu. Ah, ça nous arrange pas. am na ñuy wax nañu na yokk heure bi. bu ko yokkee ñooñu daf leen arrangé. mais yow léegi sa proposition mooy te may ñu afiya potu ndox ñu dox ndànk te ñu ñaan yàlla mbas mi yàlla na fi jóge jàmm am yàlla may ko mu oyofal ko oyofal ko ci ñoom mbooloo mu julli ndax lu amul jàmm rek du ànd du baax loolu la ñu wax ñun.